le Rufisquois ñëpp japp ni site internet bobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. yeggale. Ah ah, ah ah bu ko pas def ko bu ko. <laughs> Ndiaye xool sa xol sa téléphone bi. yow ki bu ko waxee def ko. waa ñom dañu wone ay sànke. Mhm. dem banque retirer fa onze millions. Mhm. bi ñu retiré onze millions yi ba pare waroon a dem sànke pour fay employé ouvrier ñom sen mhm. jaar ci ben restaurant di xaalis bi ñu bàyyi ko ci oto bi jaar ci restaurant bi di añ añ ba pare dem ci oto ba fekk ñu ubbi oto bi hmm. jël onze millions yi dem léegi fi ñu toogoon ñoom dafa am caméra de surveillance hmm. mais gis nañ ne ni leen benn oto toppee hmm. bi ñu gaaree gars yi ni ñu dawee jël saag bi xool ko gis ngeen ko seen portable ubbi mooy oto bu weex boobu gis naa ko ci la sàcc yi nekk kii lañ sàcc onze millions déglu ko sàcc yi nan lañuy def léegi pour di sàcc nit ñi parce que dañoo ñun dañoo yor ay sàcc léegi bi ñu jógee bu suñu frère bi retiré xaalis ñëw jox ñu ko bi ma ko joxee léegi moo waroon a dem pour fay ouvrier yi léegi nag gaar si restaurant bi nekk école wara de si côté GBC bi noonu maa ngi gaar sama oto si angle bi dugg si restaurant bi di añ léegi maa ngi xaalis maa ngi yoroon onze millions def ko si sama saak at ñaari ordinateur daf ko see deree dugg si restaurant bi añ ba pare maa ñëw ba pare li ma yor moo ma génn dem di fay ñëw dugal sama caabi oto tijji fekk ñu yóbbu saaj bi bi ñu defee loolu après léegi moo sama yeneen collègue ñu ñëw bi ñëwee xool nekk te ñu xool gisuñu saaj bi mais fi ma gaaroon sama oto on a benn caméra surveillance boo xam ne benn prêt à la bu dafa tiim oto bi quoi xaw jël oto bi léegi bi mu jëlee oto bi ñun bi ñu xoolee vidéo yi si ngoon gi bi ñu demee woo technicien bi bu femme bi ñu xool vidéo yi seen nekk da dañ ñoo toppoon ñu ngi yor benn Beretta bu weex A26 yu weex yi quoi bi xoolee vidéo bi envoyé naa naa la envoyé vidéo xoolee vidéo ñu ngi gis waa ji def tour mu ngi sol benn casquette benn service bu rouge bordeaux def tour bi ngi joxoñ oto bi naan ko defal grand tour mu def grand tour ba mu ñëwee tijji oto bi jël saaj ñu jëlee sac bu onze millions francs moo si nag yeneen nit mbokk yi rek ñi nga xam ne dañuy faral dem si banque di jël xaalis ñuy xool parce que ñooñu si banque yi nañu toog ku retiré taux bu ñu topp la te man dañoo yor ay caabi yoo xam man doo xam nan lañuy tijjee oto suñu Hyundai mi ngi nekk Hyundai Erenta bu noir ñun moom lañ yor ñoom moom mi ngi yoroon ki ki ñi ñuy toppoon ñu ngi yoroon benn Toyota bu weex mais plaque bi dafa feeñ mais dafa feeñ dafa am lu tuuti lu sufulu léegi nag porte nañ suñu plainte dig léegi ñoom ñu ngi def enquête yi ñëw nañ ba récupérer vidéo bi yépp bu soobee suñu borom ñoon moom dinañ leen teg loxo mais damay prévenir sombu tal noonu ñu xool bu baax buñ ko récupérer at ñu koy garder naka la ñi nekk ci ginnaaw mais yéen gis la ñi ci ginnaaw. dinañ ko dugal ci page xalaas. waaw l' officiel ci Facebook bi pour sénégalais yi mën cee jàng. Uh-huh. gis nga nee na dafay sant dafay ñaan gars yi bu ñu demee banque retirer somme bu mel noonu. Uh-huh. ñu xam nuñ koy doxalee. Oh. discrétion déjà man di ma njëkk contre mooy ngay retirer benn somme bi taxaw ci kees gi. Uh-huh. ñu tegal la ko fa. nga pare ne la kontel nga compter. dugal sa saak. ka lay piste ci banque bi lay toogandoo am na ñoo xam ne dañuy toog banque xoolal heure bu seen numéro ñëwee ñu ne la am demal jël benn. ñu ko compte ku am xaalis ku récupérer somme bu am doole. moo tax banque yi il faut ñu am am na yenn banque yu ko am je pense espace prioritaire lañ koy xaw ma daal genre xeet boobu la. Uh-huh. boo dee retiré yenn somme yi wala ngay kilifa. Uh-huh. maanaam ku amu tur wala genre mel def yenn transaction yi. foofu lañu lay dugal. Uh-huh. da nga retiré ba def sa saag wala retiré ba am foo ko denc génn te du xam kenn du xam loo fa wuti woon. Uh-huh. yenn somme yi dafa laaj protection protection bi mi ngi tàmbalee ci banque bi. Uh-huh. ci biir banque bi nga koy retiré. ba yegg. beneen bi topp mooy lu ma contre ci banque yi. ñoom bu ñuy jël ñun suñu salaire ñoom du ñu pour pourquoi ñun bu ñuy jëli ñun suñu salaire ci ñoom di rang. ñoom bu ñuy jëli suñu salaire duñu leen wax ne leen lii ngeen mën a am pourquoi ñun bu ñuy laaj ñu naan ñu ngeen mën a yem. loolu lépp dinañ leen ko laaj. yeggale te beneen affaire am na. seen gàtt bon yi suñu gisee Mouhamed Ndiaye. ci banque bi muy ñëw gaare oto laay dem man ñu fay jaarale sama salaire. Ndiaye ñoo gën a wóor. dafa am benn système bu bees bu ga bu bu sàcc yi jël. waaw gis nga dàllu car yi. li ñuy jël am nu ñu ko defee rek daaj ci def ci benn pont. dem ci bunt banque yi suñu gisee benn nit yaakaar ci moom nit kii dina récupérer ji xaalis bu bari day ñëw ba ci sa biir sa oto ci pono bi ñu teg ko fa soo avancé. pneu bi bënn soo arrêté pneu bi bënn fa la ñuy teg euh, genre pont boobu nga xam ni dañ koy daaj ci daalal defar ko ba mu rafet nga xam ne soo récupéré sa xaalis déplacé wu pour pont baa ngi ci pneu bi soo dawee dañ lay topp seen instructeurs yi xamuñu xam nañ ni fii 30 minutes nga crevé soo crevé ñu fekk la fa saax saaxee la. Hmm. loolu lañuy def ci buntu banque kii léegi. moo tax su fekkee da ngaa récupéré xaalis bu bari del ñaaw njort léegi nit da ngay ñaaw njort. xool say pëna bala ngay déplacé wu sooy dawal ngay xool gauche di xool droite sérété say bunt ba pare di am yoo yor dafa am yoo yor yu mel na ah temps yee passé mi ngay armé wu benn match nawetaan dafa jeex agresseur yi di agressé waat ma jël sama gol, teg ci kaw tableau de bord bi <laughs> ñoom ñu ñëw ba ci man gis ko grand doy. waaw grand yow xoolal bu ñu yóbbooti classe de dégg na li ñu lay déglu yéen la ñuy mm. bëggee yee mm. waaw mais gone bi nag fëgg bunt bi yow yaay sunu grand daal di avancé dem. suñu soo suñu xamee ni yaa leen gën a dof dañ lay romb dem. dëgg la xanaa xamul agresseur amul. mais yow loolu amoo ci droit. am la daw ma droit. yor fetal di doxantoo moom ci dëkk. doxantoo wu ma ak moom damaa génne sama fetal teg. amoo ci droit ah. eh, mais mais boo nekkee ci na chimol mat na mat si na daan bu amoo ci droit. man tiiree wu ma damaa yëkkati sama pistolet teg. loolu sax warul lu tax. warul lu tax léegi yow. beneen penalty bi mooy waroo ko def pare toog fii ci rajo bi di ko wax. dama koy wax mais yow léegi da war a ah, toog yow léegi da war a toog xaar. Euh, bañ attaqué la après nga soog a génne mais loolu du am temps. non mais xam nga problème bi mooy. gars yi dañ lay moytu. Hmm. final ba tas na. waaw toog ba nit ñi ñibbi mu. déedéet dafa tombé man xaw ma ne final am na mais match dafa am chemal ak yàlla am. waaw sa fital boobu daal bu fi tudd. alkaati yi daal ñu ngi ci mbedd. Ah. alkaati yeeg ci li ma am fital te amul fital. alkaati yeeg ci mbedd mi moo la ko njëkk moo la ko njëkk a yor de. <laughs> ci saagal bi ubbi naa ko. wuy ma <laughs> wuy ma wuy ma. tull laa <laughs> nga tull ak